الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم قال جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala di ko dimbali ko di ñaan mu jéggal ñu suñuy bàkkaar di ko ñaanit mu jubal ñu moom mi nga xamante ni képp ku mu jubal teg la ci siraatul mustaqim mucc nga di ko ñaanit mu solil nu bépp réer di seede ni amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala di seede ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam tànneefam la jaamam la ndawam la yàlla nañ ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam ba ba keroog bis penc di taxaw ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla di ñaan yàlla mu saxal ñu ci ragal yàlla ba keroog ñu ñuy jébbal suñu borom subhanahu wa taala mbokk yi suñu xutba yi tey dañ koy sof suñu xutba bi weesu ñu doon wax ci lii di jàkka wàccu waayam ci islaam ak alaqa mooy relation bi dox ak jullit ñu jug ci woon ci wax ni jàkka de place am wala wàccuwaayam mooy ni fa la jullit ñi di joxe seeni waxtu yu juróom waaye it fa la ñuy defee seeni i'tikaaf mooy di fa wéet ñoom ak seen borom subhanahu wa taala ngir di ko gën a jege ñu waxoon ni it fa la jullit ñi di dajaloo ngir di fa jàng seen alquraanul karim ak bépp xam-xam bu aju ci alquraanul karim ñu waxoon nit béréb la boo xamee ni fa la jullit bi di daw saa su nekk su amee masala bu ko lënt ci wàllu jaamu yàllaam mu ñëw laaj ko ñi nga xamante ni ñoo fa nekk di ay borom xam-xam ñu waxoon ni it béréb la boo xamee ni fa la ñuy tàggatee góoru yàlla yi comme ni nga ko joxoon misaal ci sahabatul kiram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi leen tàggate woon ci jàkka yi ba ñu doon li ñu doon tey ci askan wi ak daraja bi nga xamante ni moom lañ am ci umma islam bi ñu waxoon ni it béréb la boo xamee ni képp kuy way ñàkk foofu nga daan daw ngir sa soxla ñu mën la kaa fajal ndax waxoon nañ ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi amoon alal daan ci génne zakat ca jàkka yi lañ ko daan yóbbu waaye it ñi daan am alal te di bëgg a dimbali di jaamu yàlla seen alal lañ daan indi ca jàkka ja moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan dajale di ko jox jullitu yàlla yi nga xamante ni ñoo ko yayoo moo taxoon ñu waxoon ni jàkka moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam defoon ci ula ihtimaamihi muy yitteem bu njëkk keroog bi mu gàddee jóge Màkka jëm Madinatul Munawwar ñuy sob ci lool li wax ni jàkka jooju kon ban rôle la am ci ci l'individu ci kenn ku nekk ci jullit ñi bi ci njëkk mooy taxliisu nafs albashariya min al ubudiyati wa tazallul li gayrillah jàkka jooju de li muy def ci kenn ku nekk ci jullit bi mooy dalay sellal day sellal sak ruux tàggat ko ba lépp luy xeetu jaamu yàlla day nekk loo xamante ni sa gis te lay nekk bu ko defee nga daal di sore nag lépp loo xamante ni dara dul ak tayal ci yow ngir jaamu yàlla ñaareel bu mooy xarsul imaani fi qulubihim wa nashri shatta al ulum wal maarif wa yaqillu al jahlu bayna al muslimin li muy jëmbat ba tey ci jullit bi mooy day defar ak pas-pasam ngëm yàllaam da koy yokk ngir xam-xam bi nga xamante ni mu ngi koy jëlee ci jàkka ja ci borom xam-xam ya fay nekk ci teewlu ga muy teewlu lépp luy duruus wala ay xutbatul jumaa la mu fay jële ci wàllum xam-xam bu ko defee loolu da koy génnee ci réer gi mu nekkoon ci lu bari loo xam ne daanaka def te xamuloon la ca ne génnee ga mu ko ciy génnee kon jàkka day joué boobu rôle ci individu bi ñetteel bi alqadaau ala almunkarat wa dalik li anna alsalaa tanha an alfahshaai walmunkar ba tey it moom jàkka rôle bi muy joué mooy dafay jële doomu aadama bi ci lépp da koy dindi ci lépp loo xamante ni lu doon jur ay bakkaar la ndax béréb boo xamante ni la nga fay def lépp jaamu yàlla la kon ma ngi lay sori lépp loo xamante ni ay ñaawteef la te julli ci boppam jëmmi julli yàlla suñu borom nee na inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar mbokk yi kii julli mën nga ko gis mu jàpp ba sell respecté charte yépp ñëw taxaw jàkkaarloo xibla sol yére yu jot taxaw julli ba noppi kooko de mën nga ni ah kii de julleem gi baax na waaye julli gu nangu moom yàlla rek moo ko xam subhanahu wa taala waaye doomu aadama mën naa xisaab boppam cee julleem saa yi bu dee ni yaa ngi julli te terelu ba tey ñaawteef yi nga doon def yaa ngi koy def muy ay jëw ak ay wax lu lu dëgg ak ay rambaaj ay dem ci ay caaxaan yooyu yëpp bu dee ni ba tey mi ngi ci yow te yaa ngi julli na nga dem nga xoolaat say julli te xam ne yàlla nee na julli di li muy faj ci yow jàngoro yi muy faj ci yow mooy tanha anil fahsha wal munkar ba tey jàkka rôle bi muy joué ci kenn ku nekk ci individu bi mooy tanmiyatul waasi'i diini fi nafsil muslim mooy dafay développer sa conscience ndax béréb la boo xamante ni boo xamee ni dem nga nga fay dem yépp yiw la la nga fay defe ji mooy jaamu yàlla bi gën a rëy ak la nga fa mën a am lépp ci ay yiw ak la nga fay dégg lépp loo xamante ni lu lay jariñ la ndax doomu aadama dese naa ma- maanaam mën naa bañ a xam lu ne ba mu des li nga xamante ni moo koy jural njariñam boo ko defee loolu day mujjee defar sa conscience kon jàkka bokk na ci rôle yi muy joué mooy dafay conscientiser jullit bi ci mu xam la mu war a def ak la mu war la def ba tey it mu bokk ci li muy def moom jàkk ci kenn ku nekk at tawjih al mustamir min al ulamaai wal aimma al masajid lil lil muslihin dafay jokkale doomu aadama bi ak nit ñu baax ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir jàkk ndax jàkk nekkul n'importe qui moo fay fréquenté jàkk du yëfi ñëpp ñi nga xamante ni ñooy way jullit ñi way gëm ñi ñooñu ñooy ñi nga xamante ni seen xol saa su nekk dafay takkook jàkka waxtu bu nekk ñu ngi xaar beneen waxtu ñëw jooxe ko ci jàkka ji bu ko defee ñooñu nga fay taseel ak borom xam-xam ña nga fay taseel loolu lam lay jural lépp ak njariñ la kon jàkka kon bokk na ci rôle yi muy joué ci jullit bi mooy da lay lëkkaleeg ñi nga xamante ni ay borom yu xol yu set lañ yu laab lañ aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim allahumma salli ala الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi suñu taxawaayu ñaareel mooy dawrul masjid fi xayaatil mujtama ginnaaw bi ñu waxee jàkk rôle bi muy joué ci kenn ku nekk ñaareel bi mooy jàkka ban rôle lay joué ci société bi ginnaaw bi ñu xamee ni jàkka moom rôle am bi ñëpp xam mooy luy jariñ la luy jëmbat di def tamit ak yiw la ci jullit bi noonu lay defee tamit ak yiw di jëmbat lépp luy jëriñ ci biir société bi biñ ciy njëkk a jukki ci njëriñam ci société mooy nashru daawatu lislamiyati ila shatta buqaa almamura xaytu inna almasajida la taxlu min adduaat walmuslihin mooy tasaare gi muy tasaare lii de wooteeg islam gi bu nu joxee misaal tey ci gox bi ñu nekk biñ fiy dëkk ñaari at ba ñetti at kenn du fi dégg ab nodd waaye li nga xamante ni moom la jullitu yàlla yi fi nekk doon lijjanti mooy ah carte bi nga xamante ni mooy carte cité bi ñàkkul fu ñu désigné ñu ne fii nii mooy place jàkka bi wër biñ ko wër ba gis ko ñëw bàyyi ko defar ko jëmmal ko ba tey mu jur lii loolu bokk na ci li tax islam tasaaroo weeg si bi donte fekkoon na fi ay benn benn waaye li ñu waxoon ci jàkk lépp lépp mu ngi xew ci jàkk ji kon mën nga jàpp ni li mu wax ni dafay tasaare diine islam gi fépp kon loolu jàkk feeñ na fii suñu gox bi ñun ñaan yàlla mu gën ko yaatal ba tey jàkk rôle bi muy joué ci biir société mooy tamasakul mujtama cohésion communautaire bi muy jur mooy benn la jullit nit ci benn la gi boole gi mu leen di boole ci waxtu juróomi di leen xamale di jokk tamit famille bi ba kenn ku nekk di xam lan moo la war ak xuquq yiy dox sa digganteeg sa mbokku jullit loolu lépp jàkk da koy joué ci biir société bi mu bokk ba tey ci li muy joué moom jàkk ci biir société bi alqadaau ala aljahli bayna almuslimina wa nashri ulum wal maarif baynahum mooy comme ni ñu wax sànq bu fekkente ne jàkk ñu ngi koy dundal ci ay borom xam-xam yu fa nekk di jàngale lii di alquranul karim ak bépp xam-xam bu fa bu fay bu bu làmboo alquranul karim loolu day dem ba tax lii di réer dafay dafay dañ ci société bi ndax nit ñi ñu ngi mujj di xam li nga xamante ni mooy li leen war ba tey it mu bokk ci rôle jàkk ci biir société bi tawxiidu kalimati muslimin wa taqwiyati rawabit baynahum mooy benn bennoo gi muy bennale lii di kàddug jullit ni ndax bu fekkente ni jullit ñi wër jàkka ji ñi ngi koy fréquenté lépp lu ñuy jàllale comme ab xibaar rek ñoom ñëpp a koy jëfandoo bu ko defee bu ñu jógee la fa des mooy jëfe bu ñu joxee misaal ci ci jumaa ji passé ñu ngi taxawoon ñu ni ah dañoo bëgg a lépp lu wër jàkka ji jumaa ji ñu defar ko yaakaar naa bi ñu xëyee ci dimanche bi mag ñi sax ñoo fa jiitu xale yi te bi ñuy noppi tranche bépp ñu ngi fi woon xàmmee woo ci ku mag xa- mag wala xale wala ku am wala ku ñàkk wala lenn ci loo xamante ni lu soxal waaye dëkkandoo yi ñëpp rek yitte bi moom mooy ndigal bi ñu jot moom mooy na jàkka ji la ko wër lépp set ndax xam nañ la fa nekk ci ci yool kon da ngay gis ni jàkkaarul ba mu joué mooy booleel ne seen i kàddu ak yeneen ak yeneen i misaal yoo xamante ni aju na ci ndax ñoom julli ñi fay jullee waxtu julli juróom yi bu doon ni ay jàkka ñoo ñu wër muy jàkka yu ndaw ndawaan donte léeg-léeg ñu ni jumaa ja jumaa jàkka la waaye particularité mooy bu aljuma jotee dañuy tëj bépp jàkka joo xamante ni jàkka ju ñu daan jullee waxtu juróom yi rek la dajaloo ci jumaa ji nga xamante ni dajaloo gën fay dajaloo dafay jur ña nekkoon ca gox bële ak beneen gox xamanteeg ñoom ñëpp ñu bokk xamante ci daja gi ñuy dajale ci ci bisu aljumaa bi naka noonu it dajaloo bi ñuy dajaloo ci iid yi nga xamante ni mooy iidul fitre ak iidul adha feetu korita ak feetu tabaski dajaloo gi ñuy dajaloo ñoom ñëpp loolu bokk na ba tey ci liy mandargaal ni jàkk rôle bi muy joué ci société bi mooy dafay dajale seen seeni kàddu xamante gi ñuy xamante ci biir jàkka ji yu yu mu fay jur mooy kenn ku nekk bu gisee sëñ Jóob mi wala sëñ Njaay mi daan ñu ci jàkka ji moom xaw na fee gëj de xam bi ñuy xam le ni ah moom de dafa feebar kooku day tijji benn buntu bu yiw ci kenn ku nekk mu war a ga- sol ay dàllam dem seeti ji ko ñaanal ko am ci waaye mu boole ko tamit xamal ko ni ñun ñoo bokk dëkk bi lii mooy suñu wareef ci ci yow naka noonu it ñàkk a gis bi ngay ñàkk a gis wala ñu xamle ni ah am na fi mbokk moo xamante ni de ah nangam ci moom daa wàññeeku dem bi ngay dem ngir fekke ji waajtaay gi fekke jullee gi fekke ba bañ koy denc la fa nekk ci liiw lépp boo nekkul woon nitu jàkk di fréquenté jàkk doo ko doo ko mën a am kon jàkk kon tijji na la bunt boo xamante ni lépp luy yiw ak lépp luy jariñ da nga koy mën a am bu ko defee xamante ak rabt bi dox seen diggante dafay génne ci seen biir alxasad mooy kiñaan wal mbuuxut ak bañeel ak bépp jikko boo xam ne jikko bu ñaaw la rek dafay mujjee dañ seen diggante ndax yéen a bokk di taxaw saa su nekk ci benn sàppe bu dul benn yoon ci biir waxtu bi ci bis bi di ñaari yoon wala di ngeen ko am benn yoon ci jumaa ji ngeen di taqale seeni sàppe te yoon saa salaam ne ni ngeen di taqalee seen sàppe noonu la seen xolit yi di tàppaloo bu ko defee mu jur ci yéen léppi njariñ ñuy mën di dimbalante tamit ba tey ci alal birri wa taqwa ci njekk ak taraanga ak lépp la jur ragal yàlla kon mbokk yi bu ngeen déggee jàkka li muy jur jur li muy joué ci individu bu nekk ak li muy jur li muy joué ci société bi lépp njëriñ la lépp yiw la kon yàlla na yàlla sàmmal suñu aimma yi ak képp koo xamante ne yaay taxawee lépp luy dundal jàkka yàlla na yàlla fayal leen ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله